commandé groupement des centres de secours numéro 2 maanaam région de Thiès ak Diourbel mën nañ wax ne di vingt deux heures quarante cinq la ñuy wax ne am na lakk am na cantine yuy lakk fële ci marché ocas juróom-ñaari minutes après fekk na suñu première fourgon bi nekk sur le terrain bi mu ñëwee gis na situation bi ak propagation bi ni mu gaawee automatiquement mooy mu demander renfort mu demander renfort yeneen engins yi nekk ci secteur bi maanaam Diourbel yi ay Daaru Muxti mooy yooyu liñ gaaw a ñëw moo ñu may chance ñu teel a six conseil ba deel ko fay mën nañu wax ne amoon nañ tuuti jafe-jafe te jafe-jafe toujours c'est la même chose maanaam marché yi doo ñëwee day xat pour ñu mën a de fii làkk bi di am heure bu ñëwee marché bala ñoo dugg rek dañuy jokkalante ak ay problème parce que nit ñi suñu wàccee ku nekk fi nga wàccoon fa ngay toog bàyyi say bagage ay pousse pousse ay brouette ay chaise ay table ku nekk daal loo wàcc rek fa nga koy bàyyi fourneau lépp dañ ko fay bàyyi ba nga xam ne du ñuy ñëw di fay lakk dañuy am problème pour accéder ndax il faut ngay dini loolu pour mën a dugg di du boobaa lakk bi du la xaar beneen jafe-jafe bi ñu am mooy problème mu ndox ndax bi ñu ñëwee tamit pour ndox mi su jeexee dañuy obligé waat dem ba fa ñaari pën dem rootiwaat ñëw te loolu en général lakk bi du la may chance bi ñu si gën a may chance mooy renfort bi ñu demandé bu bi bu Bambey Daaru Muxti ñooñu si dimbale ba bi pa teel nañ maîtriser feu bi mais ñaari jafe-jafe yi daal moo ñu moo ñu gënoon soxal maanaam occupation anarchique maanaam marché yi ni muy xate pour ñu mën a dugg ci biir ndax mbedd bi fi oto war a jaar yëpp dañ fa teg ay table ak ay chaise ak ay brouette ak lu nekk fa nekk ba xaw a yéexal beneen bi mooy problème mu ndox ndax xam nga sàppoor ndox lay am ndox la soxla pour fay lakk mais ndox bi bi ñëwee amul fi amutoon bouche bi wër marché yëpp amutoon fu ñu mën a wutee ndox